asalaamaaleykum nuyu nañ leen bu baax di leen jox seen wàccuwaay yéen ñu ñuy teewlu fii si Dakar Buzz tey nag ñu ngi fii si Njaaxiraat ñëw seet si ñi nga xamante ne nii ñooy victime yu fi nekk gannaaw ba ñu tojee seen ay dëkkuwaay ak ñi nga xamante ne nii fii la ñu dëkkoon ak seen famille di liggéey investir jëndi seen i ay terrain ñoom ñëpp nag ñoo bokk ku leen jaay terrain bi yor seen i kayit yu war waaye teewul dañoo toj seen i ay dëkkuwaay ba ku nekk wuuti foo lakkatu am na nag kenn kuñ fi fekk benn mère de famille ak njabootam bu sew daanaka moom kese lañ fi fekk mu fi yendoo ko fanaan dañuy ñëw ñu tàllal suñu micro victime yi laaj leen euh, naka la ñu dundee li ni mel ak naka la mbir mi demee ak yan jéego yi lañu ñu siy dox jamono ji yaay béy maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay sama neen. tur bi naka la. Ndeye Diop. bokk si ñi nga xamante ne ni ñoom lañ toj seen dëkkuwaay fii si Njaaxira. waaw. moo nekk nii si wet bi. waaw waaw. waaw naa kay. man kay liggéeyoon naa ñetti néeg ak saal. nga defar douche beeg yooyu ba bàyyi benn côté. mu ne xale yi nañ leen defar fu ñu nekk en na li si des bu ëllëgee bu ñu amee dara ñu kuul kii wërale kër gi mu tëju benn yoon parce doole bi demeewul woon noonu comme lu ma waxoon ci 16 août bi rek premièrement li ma fi am nii sama borom kër laa ko jëlee waaw ñàkk jariñu rek laa xamoon wax dëgg yàlla defe naa ne woon maye sax amut waaw liggéey rek laa daan def liggéey rek mu ma am defa samay doom may ci sama waajur bu jigéen li si des ma terloo waaw yore sama borom kër mu nekk ma ma toog waaw ba yàlla may ko li xam ne kiy jël te du bàyyi kenn yóbbu ko ma toog si kër ga bañ génne sama sama waa kër seen xaalis ma ñëw fii ñu indi ma fi nag indi ma fi uh, lu leer nañ na ma suuf si dafa baax nangam ak nangam ñëwal jënd ma ñëw jënd ma ñëwee jënd commencé di liggéey samedi boobu ñuy toj côté bee lañ doon tojee côté ba la ñu naan mooy cité militaire. bu ñuy commencé toj maa ngi defar ndékki maa doon defar ndékki fii ci parasol bi di defar ay beñeek ay yooyu di jaay waaw ma daan ne xale yi xaaral maa dem marché jëndi farine gannaaw moson yaa ngi bëgg beñe bi xaaral ma dem jënd fariñ ma dem marché ma demee jënd fariñ ak yooyu ba dugg ci sareet bi di ñëw ma toll fële cité Doudou Bass bi ci station Star bi ma gis oto bi di toj tel tel ma gis mu daal di dugal kii bi machine bi sama fenêtre bi rek xëcc ne ay waay ma ñëw fekk militaire police yeeg yëpp toog fii di ma xoolaam ma ay waa yéen sama bàyyi ngeen def nii waaw ñoom ñëpp ñu génne leen sama bàyyi ngeen def nii ah amu problème na ànd ak yàlla ak yonent bi waaw noonu de lañ ma def nii yëg waxuñu ñu dara bindaluñ ñu ne leen arrêté leen seen tabax bi nii naa te paa bi dégg naa arrêté woon nañ ko bu yàgg problème mu njaay mi waa asalem mu dëgg ci tànkam di jaay waaw te ñun xamuñu ci dara xam nga tamit man du ma xamoon dara bu ma xamoon dañ koy tere ñaar dërëm yu jar tàngal du ma ko fi def wallahi azim du ma ko fi def billahi wallahi taalahi du ma ko ci def ndax du ma fekk ñu ne ma pax mi am na lu ciy màtte may jël sama loxo di sibal bal du ma ko def waaw. doom yu ndaw rek nga yor tout tànk yi moom laa mujjee am sama caat Khadija. gis euh, kenn newu fi mais yow fi ngay yend fi ngay fanaan boobu baag lii nga xam ne ëpp na weer. waaw ñaari weer kay. waaw ñaari weer. waaw fan yi daal lañ lañ ñooy dugal nii ci biir kër gi naan ma yendu fii ci biir kër gi mhm. fii lañ ma abal kër gi lañ ma abal waaw waaw waa asalem sax dañ dañoo bañoon dañoo bañoon carrément xaw ma comprendre mu lan la léegi ñoom fekk fii ngay fanaan si biti ñu fat la euh, ñu lay aayeeti pour ñu abal la kër. Ah, ñuy toj dañoo bañoon ne ñun ñëpp ay génnandoo ñu tojandoo benn yoon waaw mhm. nit ñee jàpp muñ bàyyi woon dañuy toj yëpp. Mhm. jaay ñii ñëpp ñoo la jaay. benn numéro la damay indil ma kayitu kër gi jox nañ ma ko sànq. Mhm. boobu ba léegi teewu ma ko daa amoon ku mu ko xale yi na mën naa ko dem jëli. ñëpp benn numéro Pa Thiandoum moo ñu jaay ñëpp Thiandoum ma ñu jaay waaw. Thiandoum mu ciy dox ay jiw. ah nee de mi ngi dem mi dem di kii de di lijjanti man saa yi mu fa demee danaan ma suuf si sa suuf la te bu soobee yàlla li nga ci des woon di nga ko jot loolu rek la may wax waaw damay wuyonteeg moom téléphone su ma bëggoon dem këram léegi léegi ma waa ko dem këram fekk ko fa waaw. li am am ba noppi toj nañu seen dëkkuwaay la ñaari weer yaa ngi fanaan si biti ak sa njaboot bu saw bi laata ju leen abal fu ngeen di bokkatu naka ngeen ko doon dundee ngelaw bi seddaay bi. <laughs> sant yàlla rek <laughs> boo ragalut dara yàlla yàlla daal moo ñu taxaw <laughs> yàlla rek waaw yàlla moo ñu taxaw. waaw yàlla rek moo ñu taxaw yàlla moo ñu umpaleeg luy liy dox ci suuf yàlla ñuy umpaleeg liy liy dox liy dem. defuma lu ñaaw waxuma lu ñaaw wax dëgg ba yàlla war maa mën a mën a rusloo nii déedéet waaw. waxoon keroog kii kii bi nee naa leen fii ñi fi am fi ci ñëpp même kii taxaw nii di film ku fi room yëkkati nga xaalis jox ma maman demal ndugg maman demal togg waaw ñoom ñi ma bokk ak jiit bi daal xale yu góor yi ñëpp mag ndaw ñëpp bàyyiwuñ ma benn yoon. xam naa li ma manqué daal mooy dëkkuwaay waaw tey jii moom bu ma génnoon àddina neel maman de xam naa lu ko rey ñu nga ne ñàkk dëkkuwaay waaw mooy ne moo nekk sama problème. masa massa métti na vraiment vraiment doy na waar doy na waar lool lool lool massa yaay booy lan ngay sàkku. ok ma nekk rek. massa. dimbal rek dimbale ma rek te yàlla taf am fu ma nekk loolu rek loolu rek mooy sama problème di leneen bu dee yëre am naa ko am pagay talatuma sax sol yëre waaw bu dee damay soom bi te am fu ma nekk sax mi ngi mel ni damay lekk yàpp bi maa ngi lay nuyu. si maa lay fay soxna si. tur bi maa ngi tudd Malick. da ngaa bokk si ñu toj seen dëkkuwaay fii si Ndiakhirate. dama see bokk waaw. Uh-huh. depuis quand nga fi jënd terrain. 2017. 2017 si 2017 waaw. kon moo la ko jaayee. Matar Thiandoum. mu jaay ñëpp. moo jaay ngi woon nekk seen ay papiers yu leer nañ. si si ñu ngi ak suñuy papiers waaw. mu ngi ak ñun ba tey waaw. jotoon ngaa tabax sa dëkkuwaay. si si jotoon naa commencé mais comme ni ñu def gaa yëpp rek. Uh-huh. lan ñu def. suñ surprise mooy ñu xëy rek woo ñu ne ñu ngi daaneel fii gaa yi daw ñëw biñ ñëwee fekk mu demee nii waaw. naa xam ñaata nga si investir si sa dëkkuwaay bi ñu toj. waaw non xam nga affaire tajut euh, liggéey taaba taaba moom parce que da ngay dem ba jeexal rek bala nga dem ba sa xel dara ngay doo ko calculer ndax du loo xamante ne da ngay yoroon benn un million ñëw def si wala deux million ba ngay jënd par benn tonne ciment ñaari tonne mu dem ba mat fondation nga fondement xam nga déjà suuf moo njëkk seer nga jënd suuf ñëw def fondement fondement moom ñëpp xam nañ ne moom fondement lu mu bon bon bon bon bon dina jël deux millions cinq cent trois millions nga def lool di am yaakaar nga xëy xëy un ñu woo la ne la affaire bi daaneel nañ ko waaw. te yëgaluñ la ko xamoo si dara parce que bi ngay jënd bi da nga am yaakaar mën ngaa jël sa li nga jëndee terrain dugg ci gaal yi mbala nga dem feneen mais yooyu yëpp defuñ ko mm-hmm. waaw mais ñun li ñuy wax duñ ko wax kenn président de la république lañ koy wax. ndax nit du noot askanam te moom mooy njiitu réew bi waaw moom mooy njiitu réew bi léegi nag moom nee na day def social ak chaque année cent mille logements lay def mais cent mille logements yi ngay def ah pour dimbale néeju doole yi nga fekk ñoo xamante ni ñoom xaaruñu sa cent mille logements yooyu ñoom taaba taaba nañ ba am seen terrain jënd di tabax est nga bàyyi loo leen loolu bàyyi woon leen loolu gënul nga bëgg leen a yóbbu ci cinq cent mille logement yooyu bor di leen ci fekk loolu mu fii ay jeunes kese ñoo fi ne tey boo gisoon ñi fi nekk ñëpp maanaam ñi fi am ay quarante ans wala boo fi gisee borom karaw weex benn benn lay doon ñi fi des ñëpp ay jigéen yuy bokk natt ay ñoo xamante ni ay jeunes lañ ay trente ans trente cinq ans ki fi gën a tuuti fii si ñi fi am fii te ma xam ko vingt trois ans la am vingt trois ans xam nga loolu xale la waaw. léegi xale boobu nga bëgg sacrifier life am pour lan ñoo xamante ni li ñu yor ñoom mënuñ see mënuñ koo sax jeexal seen adduna loolu dafa ñaaw voilà. yow personnellement lan nga doon liggéey ba jot see jënd terrain ba commencé ci tabax sa dëkk boo man menuiserie métallique laay def menuiserie métallique laay def waaw aw ma aw ma salaire damay liggéey di xaar ku ma jox ay commande man liggéeyal ko soo liggéeyee yóbbu li nga si am ngay dajale xam nga ba mat benn affaire ngay. doog a ñëw si noonu lañuy ñuy liggéeyee mais du loo xamante ni tey dama naan chaque fin du mois ñii eh, lii laa jot te pourtant man mii dama bokk si ñi nga xamante nii sax état dans les norme daf ma war a jàppale jàppale samay moroom ndax dama yor atelier yor plus de dix personnes yoo xamante ni buñ xëyee sama atelier la ñuy xëy ñii dama leen di fay ñii dama leen di jàngal métier bañ mokkul ma ber leen comprendre nga te yow xalaatoo si état ay fonds bi bii ñuy wax DER bi ñuy wax pour gouvernement bi la ñoom ñooy créer seeni entreprise yu ndaw dem ñu lebal leen xaas ñu door ko du mujj feen waaw ñun bind nañ ay projet bay bëgg a dee mais projet boo ko bindee boo amul baralon du dem mais kon réew mi fan ban réew lañ nekk DER lan moo ko tax a jug pour ñi nga xamante ni euh, dañuy créer seen entreprise bu bopp FONGIP bi looloo ko jëloon samay dossier dem na FONGIP bi ay yoonu yoonu yoon ma jaabante bay bëgg a dee doo am benn résultat nga mujj jàpp si yàlla toog kon DER boobu Macky Sall na xam ne DER boobu noonu pour ñi bokk si moom la mais man fi ma dëkk mënu ma laa benn jeune boo xamante ni DER moo ko financé wala FONGIP amul DER ak FONGIP ñoom gouvernement bi lay lay lay lay lay lay financé mais kon ñun ñoom financé wuñ ñu ñu ngi taaba taaba na ñu bàyyi li ñu am waaw. ban jàngat nga jëlee si li ni dafa ñaaw vraiment fii même nit man dama part personnel même boo fekkee nit mu triande tabax kër sax war nañ koo teg si yoon ba mu fay mais pas toj ciment dafa seer Macky Sall fii am na ñetti usine ciment tonne bi mi ngi jar soixante cinq mille tonne ciment te ñun ñoo koy defar suñu dëkk mi ngi jar soixante cinq mille béton dafa seer. fer la même sos dafa seer essence bi tonne bi mi ngi cent kilo fer mi ngi si cinquante sept mille francs yooyu yëpp seer say doome askan xaaruñ si yow di lijjanti mais nga bàyyi bañ am fu ñu toll nga bëgg ñëw daana lépp xamal la ni mais kon ñun kañ lañuy ñuy avancé kañ la ñuy avancé te bu élection jotee si ñun askan bi ñu yàqal la ñuy tourné waat ñëwaat si ñun di ñu solloo seen tiset ah dañuy jox yu kenn xamul mais loolu du doxal réew toj moom du doxal benn dëkk waaw loolu daal mooy li nga xamante ni président boo ñu si mënee dimbalee te yàlla tax même ku jaarul si yoon tabax nan xool moom nan lañ nan lay fayee mais waroo ñëw fekk ñu tabax ba pare nga daanal seeni tabax ba am yaakaar fii kuy tabax lan xelam lan moo si nekk sama jabar dugg fa samay doom dafa yeewoo ah, mais yow nga tabax ba bay xalaat loolu noonu ñu xëy xëy toj ko après sa jabar fan lay dugg ah weer ak morom luyaas nit mën nga mën nga tëdd sa kër di luye ngay fay appartement cent cinquante mille cent mille soixante quinze mille ah borom kër gi am compréhension xaar la mais lekk ak naan kan la mën a xaar boo xëyee da nga war a ndékki même yow boo lekkul sa doom dafa war a lekk sa jabar dafa war a lekk ah yooyu yëpp nga koy lijjanti bëgg ko ak location yi seer yi nga tourné waat di di toj ay kër mais ñun fan lañ nekk est-ce que yërmande am na fi ah Sénégal bu fekkoon nekkul Cheikh Seydi Hadji Malick mbala Serigne Touba yeewoo fi sax problème la parce que ñun est-ce que sax duñ xëy ba ba ñe suñ bàmmeelu mag yi dañ ñe leen di sulli parce que jaay nañ suuf si mais loolu wóorul xam nga. loolu daal mooy li nga xamante ni vraiment ñun président nañu si dimbale te yàlla rek moo tax loolu daal vraiment mooy li nga xamante ni daal moo ñu metti voilà. sëñ bi nuyu naa la. sant naa la alxamdulillah tur bi naka la. Euh, man la monsieur Kane. monsieur waaw. da nga bokk si ñu nga xamante ne ñoom lañ toj fii seen dëkkuwaay. waaw dama bokk ci ñi nga xamante ne dañoo toj seen dëkkuwaay fii. yow kañ am kër euh, kër. man depuis 2008 daa fi am kër waaw 2008 ba léegi maa ngi fii am naa fi nag ay terrain yu bari waaw voilà am naa fi ay terrain yu bari bon li ma fi am ci ay terrain man na 32 terrain waaw parce que dama jëndaale loon samay xarit ak euh, samay rakk waaw ak samay doom waaw dama leen fi gënaloon waaw. jotoon ngaa tabax terrain yooyu yëpp. jot naa fi def euh, sept fondation sept fondation jot naa ko fee def waaw jot naa fee def sept fondation. avant ñuy toj nee nañ joxuñ leen euh, dara li nga xamante ni notifié nañ wala leneen. waaw avant ñuy toj mhm. joxuñu ñu sommation yëgaluñ ñu waxuñu ñu dara mhm. ñun bu ñu xëyee dañuy wuti mhm. suñu xëyee dañuy wuti même ñi ñuy liggéeyal même ñi ñuy liggéeyal fii bu ñu xëyee dañ ñuy woo ñu dañ ñuy woo ñu leen ñu jox leen ñu laaj ñun ñu jox leen ngeen di jox bu ñu amee temps des fois samedi dimanche ñu ñëw xool li ñuy liggéey yàlla dogal nag dañoo ñëw dañoo woo xamal nañ ñu ñu ngi toj Descotch ñëw nañ fi ak HLM ñu ngi toj bon ñu ne leen ñu ngi toj ñu ne waaw ñu daw ñu jël ñu jël sunu sunu sunu sunuy ndaamaar jógee fi ñu fi ñu nekkoon daw ñëw bi ñu ñëwee fekk nañu ñu toj ba pare benn kër lañ fi tojul te kër googu dañoo waxoon dans quinze jours dinañ fi ñëw dinañ ñëw pour toj ko depuis lors ñëw ñu fi depuis lors ñëwaatuñu fi bi ñu ñëwee. am na ñi fi nekkoon fekke woon toj bi nee nañu ñoom bi ñu ñëwee dañoo woo borom sit bi muy paa candum mataar candum dañ koo woo mu ñu jaay ñun ñëpp ñun ak ñi dëkk fële gis nga li ngay gis ne lépp ci sit bi la bokk muy 1107 ba fële ci 1107 la bokk yàlla dogal bi ñu ñëwee ñoom bu fekkoon dañoo boole maase toj lépp sax ñu mën a wax mais dañu naan tojal fii tojal fee tojal fii tojal fële ñun nag ñu bëgg a xam ñun ñu bëgg a xam ñoom HLM fa ñu jëndee ñoom ñun fa la ñu jëndee te ñoom ñoom fa ñu ñoom fa jëndee ak ñun fa ñu jëndee bokkul ndax ñun doom moo ñu jaay ñoom jarbaat moo leen jaay doom mënu fee nekk jarbaat di jaay lu tax ñoom ñu dëggal jaayu jarbaat bàyyi jaayu doom lu tax ñu bàyyi lu tax ñu dëggal loolu ñun nag lañu soxla xeexuñu xulawuñu jàppantewuñu defuñu leen mais liñ ñu yàqal ak li nga xamee ne moom la ñu ja moom lañ ñu jaay ñu moom ko muy lu wóor ki ñu ko jaay jaay ñu lu wóor yaa ngi dégg suñu alal daal la ñu soxla ku ñu ko delloo suñu alal rek la ñu soxla ku ñu ko delloo. ba xam ndax Matar Thiandoum mi nga xamante ne moo leen jaay fii yéen ñëpp te ñu toj ko ndax mu ngi ciy dox ay jéego ngir ngeen a jotaat seeni i moomeel. waaw Matar Thiandoum mu ngi ciy dox ay ay jéego parce que ñoom dañoo bëgg négocier ak moom. dañoo bëgg a négocier ak moom négociation bi nag dafay am nu muy demee dafay am dafa am nu mu demee parce que dañ ko bëgg a signaloo ci signaloo loo xamee ni euh, nekkul mu bañ mu bañ loolu moo waral problème bii yaa ngi dégg kon donc ñoom Matar Thiandoum la ñu amal problème mais Matar ñun amuñu ñun problème comme nag amuñu ak ñun problème Matar Thiandoum mënul nekk fii di dund deewul dawul demul fenn ñu am ak Matar Thiandoum problème au lieu ñu plainte Matar Thiandoum mais ñun baadoole yi ñun baadoole yi nga xam ne ñoo gël suñu alal investir ko ñëw tabax fii ñun la ñu bëgg a yàqal ñu ñëw yàqal ñu fu ñu teg loolu fan lañ ko teg comme dañoo am ak problème ak Matar Thiandoum nañ dem ak nañ dem ci Matar Thiandoum pourquoi Matar Thiandoum bu ñëwee Matar Thiandoum bu ñëwee ñoom dañuy daw dañuy daw muy jarbaatam yooyu ak asiram dañuy daw dañuy daw teguwuñu ci dëgg buñ teguwoon ci dëgg duñ daw doom yi ma achet euh, l'escorte buñ jan bu Matar Kane bu ñëwee bu leen bu leen taxaw leen dañuy taxaw bu leen wanee ay këyit dañuy dem seen yoon pourquoi ñooñu di ànd ak HLM ak Descorte ànd di ànd ak HLM ak jarbaatu Matar Thiandoum yooyu balaa ñoo fee am leen lu ñuy dogal pourquoi mënuñoo woo Matar Thiandoum Descorte warul dugg ci erreur yooyu warul dugg ci erreur yooyu yaa ngi dégg dañ ñoo yàqal nag dañ ñoo yàqal de lii moom ah non ni ñuy taxawee moom mooy lenn ni ñuy taxawee mooy leen jël sunuy avocat jël sunuy avocat plainte leen non ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci voie boobu ñu ngi ci voie boobu ñu ngi ci voie boobu ñu ngi ci yoon boobu parce que biñ ñu yàqool ak léegi xam la ci la ñu créé collectif bi xam la boobaak léegi matagul vingt jours kon donc mënaguñoo créé leen parce que ñu fi am kër dafa bari ñu fi am kër dafa bari te ñëpp il ñu ñëw yaa ngi dégg pour ñu mën a pour ñu mën a taxawal loolu mhm. mu dëgër loolu la. mu mel ni ñoom ñëpp am nañ fu ñu bokkate sax ndaxte fekkuma leen fi benn euh, maire rek laa fi fekk ak njaboot gu sewam. waaw maire bi ak njabootam bu sew amuñu fu ñu jëm amuñu fu ñu jëm mhm. li tax amuñu fu ñu jëm mooy mhm. maire bi caaroy laa déggoon ni fa la dëkk caaroy la dëkkoon bi mu dëkkee caaroy jëkkëram dee bi jëkkëram dee ñu miraas la mu am ci miraas mi la mu am ci miraas mi la ñëw. jënd fii suuf comme ñun niñ jëndee comme ñun niñ jëndee këyit yi ñuy yor moom la yor këyit yi ñële yor moom la maire bi yor yaa ngi dégg bi mu tabaxee nag ba nekk fekk njabootam ñu daaneel kër gi bi ñu daanelee kër gi bi ñuy génn bi ñuy daanelee kër gi maire bi nekk fii mais ay doomam yu ndaw ñu ci biir boo ñëwee dinaa la wan maire bi wan la ay njabootam wan la ñoom fi ñuy nekk fi ñuy fanaan ak fi ñuy nekk lépp c'est pas normal du yoon du yoon xanaa bu dul dara ñu bu dul dara ñoom ñu am tuuti yërmande xam ne ñii ay xale yu ndaw lañu yaa ngi dégg ay xale yu ndaw lañu te sësuñu fenn ci lii rek lañu yaakaaroon boo leen ko tojalee fan la ñuy fat fuñu fuñu jëm est-ce que ñoom fat nañ jën ah bu ñu lekkee fan la ñuy lekkee bu maire bi amoon sax ay doom yu mag nga mën a wax mais maire bi ay doom yu ndaw rek la am ay doom yu ndaw rek la am te lii du yoon jullit warul def lii jullit warul koo def yomal xeam nag dina am de. bu gars yi fàttee ni yowmal xiyaam du am dañuy nax seen bopp yowmal xiyaam dina am te lépp day leer lépp day leer ñun nag dañuy wax mooy président de la république ñun ñoo ko fal ci ñun ñoo ko fal moom moom moo ñu jiite ñun ñëpp moom moom moo jiite Descote moo jiite HLM moo ñu jiite ñun ñi nga xamee ni ñoom ñun ñoom moom fii yaa ngi dégg kon moom na jóg moom président na jóg woo ay médiateur am ñu ñëw ñu na problème bii ñu régler problème bi waaw ñun daal loolu rek lañ soxla woon. sëñ bi maa ngi lay nuyoo. waaw maa ngi lay sant soxna si. tur bi naka la. maa ngi tudd Moustapha Mbaye. yow jiite victime yi nga xamante ne ñoo nekk fii si Njaaxiraat ñu ñu démolir seen ay dëkk waaw waaw waaw man lañ tekki ci kanam. ginnaaw bu ma yàlla bu ma sant yàlla di julli ci yonent bi di sant sama sëriñ sëñ Mountakha Bassirou Mbacké. ñu ngi nii daal man maa jiite collectif bi nekkul ne nag maa ci mag waaye. Mm-hmm. man daal lañ ma ci mën nañ jiite daal. waaw macha allah ñu gis eh, dëkkuwaay yi ñu toj fii ndax mën nañu xam victime yi si ñaata la ñu toll. waaw waaw ni ni ko gisee wan naa la ko mat nañ ay deux cent personnes daal. waaw waaw entourage ñun deux cent personnes mat nañ ko waaw. Mm-hmm. waaw kañ ñu toj kër yi. waaw ñun biñ ko tojee léegi eh, war na mat ay un mois quelque. un euh, mois et dañoo toog benn jour daal Descott si ñëw fii ak HLM euh, daal di ñëw fii wàcc si fii mm-hmm. ay jour boobu samedi la mm-hmm. vers 17 heures mm-hmm. ñu ñëw fi daal toj fii toj fële daal di daw ki ñu ko jaayal ñu woo ko téléphone mu ñëw bi mu leen présenté kayitam ñu génnaat dem. kan moo leen ko jaayoon. ñoon ki ñu ko jaayoon Matar Thiandou moo ñu ko jaay. moom ba mu ñëwee présenté leen ay kayitam dañoo arrêté démolition yi. waaw dañoo arrêté démolition bi dem. d'accord ah. ñuy ñëw di toj jotuñ leen euh, yëgal wala jotuñ leen wax ak yéen dara laataa ñuy ñëw di toj kër yi. non notifié wuñ kenn. Ah notifié wuñ fa kenn parce que yow mi jënd sa sa si euh, sa xaalis. Mhm. ci kër mhm. suñ la notifié mais suuf ak béton ak euh, fer xaalis lay jar. Mhm. nit mun ko jënd di ko def fenn. te ñu bu ñu la notifié même kooku ki la notifié su la su la notifié yow di nga di nga taxaw xool kii lan moo tax mu ne ma naa taxaw mais loolu lépp amu ci loolu rek loolu lépp amu ci daal dañu xëy ñii ñëpp xam nga ne fii li yàgg na gis nga kër yi yëpp nga gis ne yëpp ci la bokk waaw yëpp ci la bokk waaw 1107 la titre foncier 1107 la. Mhm. Mandiaye Thian Matar Thiandou moo ñu ko jaay. yéen ñëpp yéen a bokk moom mu leen ko jaay. waaw moo ñu bokk fi ñu ko jaayee. d'accord yan kàddu la leen wax ba mu ñëwee ba gis ñu toj ko. waaw comme ni ñu ko jàddoo rek parce que ñun tamit duñu ay duñu ay dof daal waaw bi ku nekk bi nga ñëwee di jënd moom dafa laa dafa laa présenté mhm. këyit parce que man 2009 laa jëndoon. bi ma ko gisee ma ñëw fi sama waajur bu góor moo jënd fële xale yi di toxu si biñ ñëwee di toxu si bon mu ne ma fii baax na bi mu ne ma fii baax na ma ne ko waa man du ma jëndee këyit ci noonu du ma jëndee kër ci noonu yow ban këyit nga am mu yëkkati droit réel bi droit réel mi ngi ne xam nga droit réel mooy extrait de naissance su këyit kër parce que kii munoo koo am fenn te tey par exemple nekku ci sa moomeel ñu dem ma vérifier ko turam mi ngi nii ci kaw Matar Thiandoum lii de xam nga lii ñu ngi ko génne 2011 waaw mu def signature beeg yëpp xam nga lii lii notification bu leer la waaw xam nga lii boo demee tey par exemple ba demee ñu jox la ko xam nga léegi yow ma ne baax na mu jënd 2009 ak léegi léegi mu am ay mi ngi fi am ay fan 2009 am na ñuy dëkk gisoo la dugal na courant ak lépp. ñu aussi ñu tojul seen kër yéen a bokk ku leen ko jaay. ñooy bokk leen ko jaay. te ñu toj leen bàyyi leen. non ñoom kii ko kenn xamul lu mu doon. parce que mafia mi ngi ci biir mafia mi ngi ci biir mafia mi ngi ci biir parce que ki ko jën ki ko ki ki ñu ko jaay moo ko moom parce que yow mi may waxal xam nga ne àll bi kenn munu koo jënd kenn mënu koo jaay. dëkk fii gis nga ko toiture bu bu bu rouge bële moom Matar Thiam fa la dëkk. waaw yow xam nga ne état munoo jaay alalam xam nga ma la di fanaan ci këram te mu lay mu lay ciy bàyyi munul nekk waaw léegi nag ñun bi ñu jaayee ñoom ole ñu day di di wax ak ñun ay innocent yi nga xam ne dañoo jënd suñu xaalis xam nga li ma la ñoom pour ka damuñu jël Matar Thiandoum moom muy responsabilité jaay suuf si léegi ñoom dañ koy bàyyi foofu tey par exemple ñun lu ñu defar ñu yàq pour la te jox ñu këyit. léegi yow boo ne kii tey par exemple bu mu fi tabax da ngay dem jëli ko ka ko jaay ne ko yow lu tax nga jaay kii ak foo ko teg waaw noonu la demee waaw waaw. Mhm, ngeen si waxtaan ak ñi nga xamante ne ni ñoo yebal ñu toj si. waaw ñu ne ñoom dañ ne HLM euh, euh, jarbaatu paa bi moo moo jaay moom loolu la wax HLM loolu la wax HLM daf ne. jarbaatu paa bi moo leen jaay waaw mais ñun lool suñu yoon nekku ci ñun dañu yaakaar ne jarbaat fu mu mën a jaayee doom ju doom sa alalu baay yow nan nan nan la nan nga ci munta amee accès jarbaat di am accès léegi nag HLM wax ne li jarbaat jaay moo baax li doom jaay baaxu loolu fu ma parce que notification bii dafa leer droit amul benn droit réel boo xam ne tey par exemple jarbaadi yi mun naa afficher surtout si surtout ah mais lii dafa leer mm, droit réel baa ngi ni ñun lii la ñu mën a won parce que man kayit yow nit tey par exemple bu ne la maa ngi maa moom lii lim ko mën a justifier nga dem tey par exemple domaine ñu génnee kayit ba nga soxla ñu def ci turam mais loolu ñun ci loolu lañ mën a sukkandiku ne moom moom te mi ngi nii lii ba mu ko defee léegi mat 2011 la du ay caaxaan waaw léegi nag ñoom buñ ñu jaayee suñu amee problème contentieux ak HLM ak Matar Thiandoum ñun loolu suñu yónnee ñun on n'est pas là pour Matar Thiandoum ni HLM HLM dafa jënd ñu jënd HLM dafa jënd ñu jënd waaw léegi nag moom bu fekkee ne moom mooy état te ne léegi tey par exemple dafa bëgg lu leer pour pourquoi moom ñi mu jëndal indiwu leen confronté ko ak ak doom ci dama yaakaar ne doom woo eh, jarbaat warut a gën a foor doom léegi yow nga taxaw ne noo jarbaat rek ma jaay ba ba ba à l'époque jarbaat mooy doon baay loolu fu mu ci kon loolu rek moo fi ne a ah. ñaata lañ leen jaayee woon terrain. non terrain yi bon parce que ça dépend ça dépend parce que am na ñu jënd loo. am nañu jënd tey par exemple trois millions am nañu jënd deux millions cinq cent mille am nañu jënd quatre millions waaw waaw. te ñëpp jotoon ngeen tabax. non ñun ñëpp doon fii gis nga ko fii parce que ku tabaxul def nga fondation waaw. ndax ngeen xayma bi ba xam euh, si ñàkk si ñaata ay millions la war a yem. non parce que tey loolu mënu ma la ko wax soxna si parce que yow xam nga ne bâtiment la ca gën a tuuti mooy fondation fondation boo boo xoolee le minimum da nga ci def trois millions kon nag tey par exemple bu yëkkatee. yow kay calculer dix millions rek ku yëkkati sa kër ba kule dix millions yi dina dugg waaw ci ñoo xam ne tey par exemple ay euh, euh, euh, ay ay ay ay góorgóorlu lañ ah ñi ngi fi gis nii ñëpp majeure partie bi mun naa la wax soixante dix pour cent ah duñ amuñu ay salaire dañoo ñafe seen bopp xam nga li ma la lijjanti li ñuy lijjanti xam nga li ma la ah, ah, ah ba am li am ah. kon nag. bu fekkee ne ministre monsieur le président mi ngi ne tey par exemple askan la fi nekkee ki nga ñi nga xam ne dañuy góor góorlu te bëgguñu alalu kenn ñooñu la war a gën a protéger ñooñu la war a gën a protéger parce que y a des yoo xam ne ñi ngi ci wetam di jël moomeelu askan bi di jël alalu baadoola bi di ci tedd te loolu c'est pas normal te c'est pas normal c'est li ñu bëgg nag moom. comme yàlla def na ko moom mooy suñu njiit te jeunesse moom mooy moom mooy moom mooy moo yor avenir u dëkk na taxaw jeunesse bi parce que jeunesse bi duñ jeunesse yu ñàkk joma ah. te dépendre nuñ ci état lu état am bàyyee nañ ko ko mais ñi ngi ñafe demuñu ci gaal gi demuñu rey nit duñu ay agresseur ñi ngi yor seen atelier di taaba taaba ñëw indi seen affaire di tabax pour lan fonder une famille ku ñàkk jom xamal ma la du jéem a créer tey par exemple bay tabax ñoon daal lañ ko bëgg moom mu sukkandiku ci loolu jëm ñoo dimbale te xam ni lii dafa ñaaw 1107 carte kii baa ngi ne plan baa ngi ne mi ngi ne 1107 mi ngi ne plan baa ngi 74 hectares yi moom la HLM jënd lii lépp 1107 la waaw lii su ko état jëndee di ko buuxanteeg tey par exemple ay ay baadoo la ah waa lii lii lépp nag te famille bii ñoo ko moom moom mu jël lii lépp lii lépp droit réel bi HLM moo ci def turam lii lépp waaw lii boo ko xoolee trente cinq kilomètres la ça fait presque tey par exemple trois mille trois cent hectares ñun ñii ñëpp mun nañ xaj nañ ci waaw lu tax léegi mu Macky ñëwul tey par exemple ah ñëw toog ak HLM toog ak ñun toog ak famille bi ku ci nekk fii mu jox la li nga war a am jàmm na ñooy bu fekkee ne HLM dafa jënd fii na jël li na jël lii te génn suufu jàmbur yii li mu moom na ko jël pourquoi muy mu mu nekk fii yëpp lu tax lu tax lu tax. daal lu mu moom boole li ngeen moom. déggoo li ma la surface bii la am mi ngi nii 74 hectares yaa ngi nii mi ngi nii. xool 74 hectares yi la wax ne moom la jëndee ci jarbaat yi. yaa ngi dégg baax ma la léegi xoolal fii fii lu ñu fi def 700 waaw fii lu ñu fi def fii lu ñu fi def lii fii lu ñu fi def waa léegi ba kaw léegi calculer fii léegi nga xool mi ngi ne di jeune presque la en tout tëpp hmm? waaw 3300 et quelque ci ñoo xam ni seen bàyyi ko moom. ni mu jëndee fii non non loolu sax bu leer rek bu leerul moom na jël sax li mu jënd lu leer mu dem famille bi régler seen problème parce que lii ñëpp xañ na ci mais nga jënd lii ah lii nga xam ne tey par exemple ah, ab askala ah ñëw toog ci lii lépp boole di yàq askanu jàmbur yi mais c'est pas normal c'est pas normal monsieur le président na xamul lii bandi yi ci boppam ñoo def lii ma mafia yi moo tax mënuñu lijjanti lii. te lii bala lii bu leeree lii yëpp day toj moo tax nag moom woon ko ko nii mu xam ko lii lii yëpp bu bu leeree lii bu leeree ñi ñii ñëpp dinañ wax ñoom nan lañ def ba am suuf te ñii nag ay ponkal yu nekk ci wetam ñi ngi ñoo ñoo ñoo ci tëdd ñoo ci tëdd waa léegi nag tey par exemple yow ki nga xam ne sa baay moo notifié lii lépp trois mille et quelques hectares yi amu ci sax ak benn mètre waaw. moom mi bàyyi moom. HLM amul suuf yow nga ñëw ne ma sa jarbaat moo ma jaay waaw léegi yow ah yow nangu nga ne man sama jarbaat la léegi man lan laa war a am ci suuf si affaire yi dafa yombu mi ngi nii. loolu leer na nañu li nga wane nii ak li nga expliqué ñu toj seen kër yi ba pare amul tamit dara li nga xamante ne ni teg nañ ko seen ay loxo yéen victime. non teg ñu ci dara suñu loxo parce que ñun tamit nuñ def ba jot suñu kër rek lañ bëgg fi nga xam ne nag tey par exemple ci droit bi nga xam ne war nañ war a dem pour dem ci justice ñu ngi fay dem ñu ngi fay dem waaw topp ko comme niñ ko toppee waaye moom moom moo ñu mooy ndey ji seex man li ma koy ñaan mooy. na woo directeur HLM o oh, famille bi ñu toog lii ñoo xam ne mille neuf cent cinquante cinquante quatre lañu def am bordereau analytique bi cinquante quatre waaw lañ am bordereau analytique bi la seen baay defar lépp tënk ci këyit HLM amul suuf HLM HLM day jënd di jaayaat waaw léegi yow soo ñëwee ci benn famille mm-hmm. waaw léegi yow jëndee ci jarbaat léegi nag doom jan ak moom lan la war a am mais nañ waxante dëgg parce que yow mii dima ma di ma nii tu travailles pour tes enfants ñun ñii léegi man mii ci boppam ma damaa am yërmande ci moom parce que lii ku ko sa baay baay te kenn déggu la mm-hmm. ngay milliardaire boo xam ni da ngay amee problème mu cent mm-hmm. ñaaw na. ci ay kii du leer ñoom ñoo ko defar lii nii droit réel bi man defaruma ko lii c'est titre foncier mi ngi nii yow jàng nga mi ngi nii ah lii titre foncier la mi ngi nii lii lii du baay du dara lii mi ngi nii mi ngi nii ñoom ñoo ko def domaine lañ ko jëlee titre foncier 1107 mi ngi nii waaw mi ngi nii lii man moom ma ko moom baka ko di defar man fekuma ko papaam ba mu koy defar sax avant l'indépendance la booba HLM sax amagut 35 hectares ku ne xaj na ci na monsieur président woo famille bi woo directeur HLM ñoom ñu jël liñ jënd dem seen yoon li ci des ci suuf suñ jox ko famille bi jàmm na ñooy jàmm na ñooy 74 hectare nga jënd mais jël ko nga dem nañ ko jël da dem ñu bàyyi suufu jàmbur. loolu leer na balaa ma laa bàyyi yéen ñi nga xamante ne nii toj nañ seen dëkkuwaay yéen a ngi toll si 200 victimes nga ma wax te bañ ko tojeeg léegi mat na un mois weer ma daanaka léegi victimes yi ñoom ana fuñ nekk fan la ñuy fanaan fan la yendu victime yi moom yow yaa ma gën a xam Sénégal fu dëkk Serigne Touba nekk Alaaji Malick nekk fa sag rek a fa nekk yow da ngay bokk nit ndey ak baay la koy métti sax doo xam loolu yàlla moo ñu ko moo ñaale ku ci bu la la métteeg la la naqar yaa ngi toog jàpp sa ñàmbur mais li bëkk bëgg mooy nañu delloo suñu alal parce que dañ koo jënd fu leer HLM bu jëndee bay tabax bu ñëwee ci famille bi jënd foofu mu leer ñun nag xanaa ñun duñu ay sénégalais wala ñun ay naa burkinabé lañ moom fi mu jëndee lañ jëndee mu ne leen suñ jënd baaxul ñun fi jënd moo baax doom jaa ngi ne fee ci suuf si la dëkk. Matar Thiando ma nga ne fay la dëkk ci suuf si noonu la deme soxna si léegi nag nañ dimbale ngir yàlla te lii rek moo fi am te loolu rek moo fi am nañu dimbale ci jaam yi nañ dimbale ci néew di doole yi ñi nga xam ne bëgguñu sàcc bëgguñu fenn bëgguñu def dara man mii damay immigré am naa fi presque trente cinq terrain waaye war a retourner pour investir nga ñëw fii ñu jël ko lépp nooy def. ndax ngay def est-ce que yow di nga am courage yu léegi tey par exemple pour ñëw sa dëkk léegi te du ci man kese depuis tey par vingt cinq ans nga def ko immigré waaw di di di di di daan sa doole loo am jënd ko pour denc pour préparer sa retour am ngay njaboot am nga lépp man su ma xëyee fan laay liggéey fan laay liggéey kan laay ñaan tey jii yow su ma bëggoon tey benn ñëw fii na la am naa problème cent mille dang may ree rek waaye doo ma ko jox. waaw ne mais léegi tey ñi nga xam ne tey par exemple dañoo nekk ay immigré nekk ci àll bi di ñafe di investir ci seen dëkk nañ leen jox possibilité yi xale yi nga xam tey par exemple bu leen bëggee dëj fii nañ leen ni li moom nañ leen ko bàyyeel seen i ñaar dërëm seen i dërëm nañ leen ko bàyyee ba pare may leen possibilité ci dëkk bi mooy tax nga toog fii parce que nit boo demee bay sacrifier sa bakkan bi sa parce que amoo lu la neex fa nga nekk kuy tekki ak tekki ni mu neexee sa sa dëkk ngay tekkee kon ku sañoon li ngay am sa dëkk ngay bouger doo bouger mètre waaw loolu daal moo ñu fi naqari ñu ngi ñu ngi ne waaw waaw nañ ko des fois ah, waxaat na ci waa dëkk bépp dugal seen làmmiñ waaw ma ah, ay ay ay ay ay ay suuf si bëri na am na ay espace yoo xam ni dafa libre lii nii ñoom ñu ñu du ci dara ñoom tey suñu ñëwoon ñoom ñu wañ jàppaleen ci loxo won leen ay espace yu libre te comme moomu jiite réew mi ah mais loolu war naa régler war naa régler HLM sax tey par exemple ñoom bu ñu ñëwoon waxtaan ak famille bi mun nañ leen jox feneen ah ñu bàyyi ñoom ñu lu ñu moom marché bi tas mu jeex ah mais lii dafa ñaaw ñun nag duñ ko bàyyi tey duñ ko bàyyi ba fii suñu bakkan lañ ci teg lu leen jaral rek ñu jaral lañ barki borom Touba man parce que kenn du ma dégradé waaw vingt cinq ans laa exil lu ma jaral jaranam dematuma feen fii laay toog ba lu ma am jël bu ma ma defaree fii sama sama bàmmeel nag ma xam ne woon wàcc na waaw man foofu laa àgg ñuy wax sax waxuma mais man foofu laa àgg xoolal kee nga xam ne ka nga romb fële ci bunt bi. man soxna Seck njabootam daanaka moom kese laa fi fekk mu lal mat naa wam tëdd. moom man bi ma ñëwee sax moom ma sensibiliser hmm. parce que ñëwoon naa ak sama aalu. waaye yàlla dafa def bi ma ñëwee ba gis ko sama xool dafa tooy parce que man jóge naa ci kër yow romb nga ko fa fa lay fa la fanaan fay la fanaan ci mbedd bi yow yaay nga ay doom a ngi nii ñi def lii am nañ ay jabar am nañ ay doom te teguñu ko fenn lii xam nga ne teguñu ko fenn lii sabotage la parce que ku tabax sax yow war ngaa xool naka la tabaxee nga gérer ko. parce que ki tabax këram nii tey terrain bi boo na ko woon tey fayal ma jox la terrain bi mu fay waxatuma laa mu jënd lim moom ñu jël moom nga xam ne tey fa ñëw fii jëkkëram gaañu bàyyi ko njaboot bu sew mu jënd këram tabax ko ba mu ngi waaj a kuule ñu fekk ko fa daaneel ko lii ana sociale bi nga xam ne tey par exemple Macky Sall lay wax kon ñi nga xam ne tey par exemple defuñu nii xam nga kii tey lan moo ko teree tem toog ba pale mu teg ay doomam ne nañ ko dimbale te par force sociale da ko war a dimbale mais mi ngi jël ci alalam investir ñu fekk ko fa fa nga xam ne tey fi ko yow xam nga ne fii yow yow kenn du la fa fanaandoo moom mu ñëw fekk dignité am nee na na dugg rek buy soom bi baax na buy ruy baax na ñu fekk ko fi daaneel ko lii dafa ruslu dafa ruslu tey Macky monsieur le président ni ñi ñu ngi xoolaataa sa entourage ñu ngi lay yàqal waaw ñu ngi lay yàqal ñu ngi lay defal loo xam ne tey par exemple bu la dëkk bi taxawee ku nekk naan Macky Sall Macky Sall ñoom ñoo lay yàqal wàccal ci terrain bi nga giseek baadoolo yi waxtaan ak ñoom li nga war ci ñoom nga def ko. da ngeen jàpp mi yëgul li ni mel. parce que tamit mu yëg na ko. yëg na ko parce que man tamit man yow euh, tey par exemple euh, ki def lii man maa ko fa teg moom mooy directeur bi directeur HLM dama yaakaar ne HLM Descos suñuy ñëw fenn loolu eh, <laughs> directeur war na ko yëg directeur kan moo ko fa teg Macky Sall moo ko fa teg kon ñun dañ naan Macky Sall moo yàq suñu kër moom mooy responsable bi moom mooy responsable ñun amuñoo kenn affaire parce que soo déggee ñu koy interpréter directement c'est parce que moom moo mën a régler problème bi. moo tax ñu ne président na ñëw ci lii wax ci lii régler problème bi waaw loolu daal la ñuy ñaan xam nga nañu ñëw tey par exemple xool parce que fi mu ne nii fii plus de un million personnes ñu ngi fi te du fii rek fee daaneel nañ fa fee daaneel nañ Doudou Bass daaneel fa ñëpp daaneel nañ waaw waaw waaw nañ jéem a jeef xam nga tey par exemple yàlla def na xëccoowuñ dara li ñuy xëccoo ñoom ñëpp xaj nañ ci mais nañ toog ci taabal nañ toog ci taabal te ñii tamit li ñuy xëccoo famille bi famille bu noble la ku sa bàyyi bàyyi trois mille et quelques loolu alal la boo xam ni kenn xamu nu mu toll te kenn mosu leen a dégg kooku suñ suñ leen woowee ñu toog luñ ca war a am ñu jox leen ko rek la yenn problème duñ ko bañ mat mu jeex mu jeex loolu rek laay maa ngi gërëm ñëpp nag maa ngi gërëm ñëpp nag waaw